salaamaaleykum mbokku internet yu Saint-Louis TV daleen ak jàmm ci seen euh, émission bi nga xam moo di euh, jotaay campagne bi comme ni ñu koy defee saa su nekk tey nag ñu dalal ki nga xam moo di euh, Moustapha Niang di bokk ci pôle communication bu coalition Sonko président 2019 bu Saint fii ci Saint-Louis donc ñu war ko bàyyi mu nuyoog ñi nga xam ne di mbokku internet bi. Euh, Moustapha ñu ngi lay ziar. Euh, ñu ngi lay euh, ziar yow aussi di nuyu mbokk internautes yi leen xamal également que ñu ngi am plaisir pour waxtaan ak ñoom tey ci maanaam li ñu jëm muy élection présidentielle yi 2019. ok mu mel ni élection yi lu ko waral mooy am na lu fi jotoon am muy pa président Macky Sall mi fi nekkoon sept ans yi jeex na donc nan nga gisee programme bi nga xam ne jot na ko liggéey si sept ans yi. waaw loolu moom yaakaar naa euh, buñ ko waxee euh, képp ku nekk sénégalais. Mhm. Euh, war nga mën a def bilan. man <laughs> nee naa bilan bi ñoom xëy dañuy coow di coow lu rek peut-être bëgg a naxaate rek mais yaakaar naa sénégalais bu ne mën na def bilan ci lu mu dund. ci sept ans yi parce que fa ñu commencé mooy euh, avant ñu koy fal mu di buñ ko falee dina wàññi mandaam ñu fal ko mu répété waat ko wax ko ci biir réew mi wax ko bitim réew fu ne mu wax ko fa mhm. euh, finalement mu génn si ba set wecc mhm. xam nga et ce qui est plus euh, malheureux wala li ci gën a ñaaw ci génn bi du génn bi rek mais génn bi ba pare mbubboo justice manam ci biir génn bi tamit mu am justice bi euh, parce que génn bi utiliser justice mhm. pour justifier mënul def ans 7 ans la mën def. amul ci amul def ans euh, euh, mën amul def ans ans la a mhm. justice bi léegi justice bi léegi ñëw sol mbubu defal ko bëgg comme justifier. non est-ce que non c'est-à-dire accusation parce que tay say ni euh, bu euh, benn problème posé wo mhm. euh légui euh ñi nga xamni ñom lañuy xaar pour ñu décider. moy mhm. conseil constitutionnel wala yoy mhm. ñu ñew ni ñom li avis la yaangi dégg euh benen yoon ñu ñew euh joxé euh, lo xamni mom lañ joxé woon ni avis la ñu jël ko def ko décision. xam nga bu boobaa également tamit askan bi léegi day dootul xamati fan lay taxaw ci question bu mel noonu. Mhm. day mel ni comme président mi nga xam ni moom moo jiitu moom mbir mi day xool nu mu ko arrangé rek mu tërale ko noonu. kon daal yéen yéen ci ci bilan bi maanaam euh, lu lu lu gën a sedd mooy ci wàllum justice bi da ngeen wax ko waaw bilan bi justice bi ma ngi ci. Mhm. mais également am na yeneen anam. Euh, euh, par exemple économie bi. Mhm. parce que économie bi li ci gën a doy waar. Euh, mooy c'est vrai que dañ naan chantier yi bari na bari na bari na. Mhm. mais à quel coût c'est-à-dire euh, chantier yi fu ñu waroon def maanaam cinq milliards ñu def fa dix wala quinze milliards. mais est-ce que est-ce que chantier bee laaj rek nag. Euh, non c'est-à-dire chantier bi mënul laaj loolu parce que gis nañ feneen fu nga xam ne liggéey nañ fa lu ëpp loolu ñu liggéey ko à moindre coût boo jëlee carte d'identité biométrique yi ñu def loo nii déjà loolu rek cinquante deux milliards. Euh, ñu def ko ci euh, lu nga xam ni xaw ma 6 millions de cartes d'identité. est ce que loolu du ñëw ci lu population bi di wax souvent naan Sonko booy xool amul programme du dul dafay jël li nga xam ne moo di ci bilan Macky Sall rek di si wax à chaque instant donc est que tamit bu ñu dégloo kàddu yi ngay waxee nii est ce que tamit du ñu du ñu du ñu ñu ko ñu Sénégal yi di encore. non man nee naa euh, loolu mënul ñu war a mën a gise noonu parce que lépp loo gis daal fu muy commencé. Mhm. c'est-à-dire ñun nekkuñu au c'est-à-dire ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi. Hmm. maintenant ñun nag en tant que sénégalais dañuy ñew ci li ñu def ñu ni lii baaxul ñun lii la ñuy proposé. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. te ci biir loolu yor bi nga xam ne yor bi setul sellul yaa ngi dégg et puis yor bi dafa mel ne dafa wékku ci ay intérêt euh, ay partisans yi nga xam ne ñu ngi ànd ak yow ñun dañu bëgg euh, bu ñu ñëwee. Euh, lépp loo nga xam ne yor bu ñàkk a sell boobu ñu defar ko ba mu baax. et puis ci wàllu justice bi également président ci boppam. Mon conseil supérieur de la magistrature mon président Sonko buñ ko bu ko comme nim koy waxé buñ ko wolo ba ko day genn justice mu librement comme indépendance bi ñuy wax di ko depuis boobu légui mu mëna nek da wax ni instant bi justice bi manam dafa amul indépendance quoi mom instant bi maquette maké maké kay conditionné loolu ngeen bëgg wax xam euh, justice bi mhm. euh, ci benn anam mhm. euh, mën ni ñun Sénégal euh, am nañ ay magistrat machallah yu xereñ yu jàng euh, mais li problème bi moy euh, le système tel qu'il est organisé dafa dem nu nga xamni président loxom day nek lu timu yir justice bi nga xamni tay say am lu nga xamni boko boo mom amna moom am na mën am nu mu dalee sa kaw par exemple souvent magistrat sax bu wax ñom dañuy poser sen problème carrière mm-hmm. donc ci mom lay dépendre donc bu fekkoon indépendance boobu amoon nañ ko ba moom mu dindi loxoom foofu noonu bu boobaa magistrat yi dinañ gën a mën a autonome justice gën a mën a jaaxaan mën a def liggéeyam ko ni mu waree waaw am na solo donc gis nañu aussi tamit boobu léegi campagne ba mu dooree mhm. mi ngi tourné fu nekk dem na fu nekk la fois passée ba démb bi woon fii Ndar mhm. euh, seet si leen donc nan nga gisee aussi tamit euh, bilan bi nga xam ne ko dégagé bon euh, campagne bi di sant yàlla bu baax ci campagne bi di dellu di remercier également sénégalais yi en particulier waa Ndar Euh, ci ni ñu tertoo euh, président Sonko. Mm-hmm. si niñ ko gunge ak si niñ ko wuyusoo également ak si niñ ko déggee ci li mu leen di wax. Mm-hmm. Euh, parce que boo xoolee mboola mi ko topp avant muy dugg Saint-Louis mu ñëw dem UGB ñu ànd ak moom UGB ba ñëw place Faidherbe nekk foofu malgré sedd bi ba presque ay une heure et quelque loolu yëpp day wane que ni nit ñi tey dañoo am désir pour changement. parce que li fi président ce propose askan bi am que soit sur l'économie, que ce que soit sur le justice que ce soit également sur le plan social mhm. gis aussi PSE euh, PSE mm, e, mhm. donc euh, est-ce que am a e est-ce que am sari xam nga euh, PSE mhm. euh, souvent euh, booy seet dañu dajale ay programme yu bari ak ay plans yu bari mhm. mel comme ku def ben synthèse bëgg ko def ben plan yaangi ngi dégg et lolu mu nekk ben problème nekk ben genre incohérence par rapport à la réalité sénégalaise mhm. yaangi ngi dégg beneen bi mooy ci bir ki PSE bi dafa am luñu faté ñom waaw manam euh, place bi nga xam waron nañ ko jox ressources humaines manam nit parce que lepp luy am nit koy def. Mhm. te pour nit lay doon encore. Mhm. donc kok buñ ko ci faté euh, wala joxuñu ko place bu doy. Mhm. Euh, donc programme bi du dem. té tay say japp na ni président Sonko limuy incarner ak limuy woté bu ko yalla dimbalee ba sénégalais wolu ko ba dénk ko réew mi. mom dina mëna ñëw avec programme jotna bi corriger failles yi nga xam ne moom lañ gis ci PS e bi mais jot na boobu est-ce que est-ce que aussi tamit ngeen mën ko leeral parce que mooy li ma la wax léegi léegi booy xool gars yi ci lu ñu gën a mën a focal gars yu bëre lu ñuy hmm. focal di ko dégg maanaam mooy que mooy li ma la wax hmm. gis nañu programme ki nga xam moo fi nekk muy Macky Sall hmm, gis nañu tamit programme yi nga xam yeneen candidat yi ñu ngi koy mën a wax boobu léegi mais à chaque instant bu ñu déglu moom dafay mel ni comme si benn programme la am muy Macky Sall lu muy wax Macky Sall lay wax bon kon yaakaar na euh, kooku moom euh, waxu euh, ñi déglul Sonko la wala ñi nga xam ni peut-être i ay adversaire lañu xëy na xëy na xam nga xam nga saa bu jëlee communication bi def ko muy armam donc ba lu mu bëgg wax fàtte fàtte sax programme bay chaque instant ñu dégg Macky Sall Macky Sall Macky Sall donc est-ce que jotul tamit mu génne programme bi nga xam ne moom la war a jox sénégalais yi ñun tamit ñu xam lan la c'est-à-dire moom boo xoolee ci programme da ciy pourtant da ciy wax booy seet sax amna ay synthèse yu mu def par exemple boo gisee euh, mu génn les vingt mesures phares euh, du programme Jotna na yaa ngi dégg mais xam nga toujours programme également euh, pour mu mën euh, emporter bi nga bëgg. Mhm. pour mu mën réussir également day soukandiku ci li fi nek comme euh, ci li fi manam euh, gestion bi ak réalité yi. Mhm. c'est-à-dire xam nga li fi nek c'est un échec. Mhm. parce que ñom ñi fi nek war nañ seen ci wàllu économie wane seen tële pourtant pourtant ñoo ngi ñoo ngi doxal de cest ñu ngi doxal mais tey say boo duggee sénégalais lan la ñuy wax foo tourné dañ naan la dëkk bi dafa mag waaw ah, mais est-ce que du est-ce que ñoo koy wax rek non c'est-à-dire xam nga du dëkk bi dafa màgg xam nga parce que je pense que euh, mu mu mu ñu dox musu waane ba ngeen mën xamul programme loolu moo xam naa mu xel nañ ko sax non c'est-à-dire xam nga toujours euh, mm-hmm. tey say mm-hmm. yow jëla sa micro yow en tant que journaliste mm-hmm. nga dem ci marché bi nga xool nga laaj ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi nga dem ci euh, artisan yi nga laaj leen nga dem ci petite et moyenne entreprise yi nga laaj leen mais man am na benn jour ma déglu président muy euh, wax ak euh, patronat bi mais man jour boobu dama am kerso pourquoi ma am dama cest à gàcce la pour man parce que un président de la république yow nga am maanaam pour wax ak sa patronat ñoom ñu ñëw di la wan seen lot ak seen sonn ci ni ngay doxaleeg ñoom maanaam li nga leen di jox ci ay. Euh, li nga leen di ah, seet mais xam nga loolu tamit booy xool euh, waxu waxu politicien la. du waxu politicien parce tey say boo taxawee. nga jël lu tolloog euh, commande publique bi. Mhm. nga ñëw naan xaw ma ay carotte ay 15 pour cent nga ci jox ki ki ki artisan yi wala yooyu. Mhm. donc li ci des lépp fan lay jëm bitim réew la jëm. donc ah artisan yi ak. petite et moyenne entreprise yi loolu lañ doon jooy le fait que suñu économie nekk une économie ni ko tubaab yi waxee extraverti maanaam économie nga xam ni maanaam ci euh, loxo yi nasaraan yi lay nekk donc ñoom lu ñu mën a liggéey seen réew lañ koy yóbbu mhm. donc ñun suñuy petite et moyenne entreprise euh, du ñu def lu dul ñële di jël di leen di ruusal ñoom ñuy for

ci ay oto. Mhm. Euh, ñëpp xam na ne budget la. waaw donc ak quatre-vingt-quatorze milliards yi nga xam ne ñu ngi leen koy jiiñ. Mhm. est du bu ñuy xool amul genre kii bu am ci suuf. <laughs> no c'est-à-dire xam nga euh, toujours. Euh, li <laughs> li ñuy wax rek. Uh-huh. parce que gis nga actuellement Pastef. Uh-huh. dafa nekk partie bu nga xam ni. Uh-huh. c'est des sénégalais. yi nga xam ni bëgg nañ seen réew. ñu toog. gis réew mi di doxe nu nga xam ni peut-être baaxul non seulement pour ñun baaxul pour suñuy doom baaxul pour suñuy sët hmm. léegi ñoom ñu jóg taxaw pour loolu dañ fi maintenant euh, ñun euh, lii ñuy wax ci financement wala yooyu sa à ñun kenn ku nekk li naan la don de soi yow yaay ñëw nga jël sa bopp jël sa alal xam nga jël sa lépp ñëw def ko ci ni man li ma bëgg mooy suma réew tegu ci yoon suma réew jaar yoon hmm. ba nga xam ni comme ni ko président di waxee li ñëpp bokk ñëpp jot ci. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. loolu moom mooy suñu force tey say boo xoolee diaspora bi euh, ñu ngi envoyé cent millions. sur le plan national. rien que pour campagne bi. Mhm. rien que nous au niveau régional fi kenn ku nek bureau on est presque à 50 personnes euh, kenn ku nek da nga yëkkati 10000 francs joxé ko et chaque fin du mois il y a des cotisations mensuelles nga xam dañ def depuis très longtemps. pour campagne bi la pour campagne bi pour part activité parti beeg mais est-ce que est-ce que tamit boo calculer li nga fi lim ci koppar mën na mën na doxal campagne bi. parce que campagne tamit dafa laaj xaalis bu bëri fi nga war a dem yëpp mu leeñ la boo jógee oto yi dar dañu war a am euh, essence yi am gasoil nga jógee foofu tamit nga xool boo demee da nga war a fanaan si ay hôtel donc tamit. mais li ngay wax lépp mais da nga fàtte les bonnes volontés nga xam ni. c'est des bonnes volontés mais 94 milliards yi gars yi di wax aussi tamit mais 94 yooyu noonu. mais je pense que euh, coow li. Uh-huh. Euh, dafa war a leer parce que depuis avril 2018 le président. Euh, rek clamé ci procureur. maintenant procureur boobu nga xam ne moo waroon autosaisir wu pour pour pare justice mën a euh, sànq jël problème bi mën ko leeral mais moom ba léegi waxu ci dara maintenant loolu président ñëwaat ni leen léegi si 94 milliards yooyu mu doon jiñ xaw ma euh, kii kii kii kii directeur kii impôt et domaine. mu ñëwaat mu ni leen ci 94 milliards yi ñoom encaissé nañ ci 46 milliards. mu ni leen bu ngeen ñëwee ma wax leen euh, euh, banque ba ak euh, numéro compte beeg yëpp mais waa sëriñ bi bu fekkente ni bëgg nañ lu leer mais loolu procureur beneen élément la bu nga xam ne mën na ko intégrer ci dossier bi pour instruire ko mën a leeral mbir bi et puis ce qui est plus malhonnête dans tout ça bi président waxee loolu Euh, j'ai vu le camp euh, présidentiel ñi agité wu naan léegi moom ma ngi doon wax 94 légui 46 lay wax man len euh, mais nañ baye naa feq <laughs> c'est-à-dire euh, waxul 46 milliards dafa ni si 94 milliards yi ñom encaisser nañ ci 46 milliards yi nga xamni euh, numéro compte ba ak banque ba yépp buñ ko ñëwé mu jox len mu jox len ñu dem ñu dem te banque ba ak numéro compte bi. lool kay xana ku bëgg lu leer. Mhm. mëno am lu gëna leer lool dëgg la ok donc gis nañu aussi à chaque instant seen mbir euh, wax. Mhm. dañuy dégg système bi. système bi waaw. donc est-ce que mën nga revenir maanaam ban système la ñuy wax foofu noonu. sa à xam nga euh, Sénégal. Mhm. bi ñu euh, jëlee indépendance ba léegi. Mhm. ba seet euh, nit ñi ñooy changer rek ci ñiy doxal ak ñiy jiite. mais boo xoolee ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekk di dund li fi nekk. donc li ñuy dund daanaka benn la wala boog comme ni ko tubaab di waxee day gën a doy waar. di gën a metti di gën a jafe mm-hmm. nit ñi di gën a ñàkk ñi am di gën a am mm-hmm. et puis euh, ñi am doole euh, mën a tooñ def lu leen neex ah, dara leen fekk noonu la àdduna bindoo nag non sa waay adduna ah, bindawul noonu de. Ah, ñëpp mënuñu amandoo. non adduna mu bindawul noonu ñëpp xam nga ñëpp mënuñu amandoo. waaw ah. mënuñu tolloo doole. Mhm. mais xam nga li ñëpp bokk. Mhm. ñëpp jot ci. dëgg la cest à xam nga bu doon ni comme par exemple ñoom lii kii moo ko moom wala kële. Mhm. mais lu ñëpp bokk la alalu askan bi la. comme ni ko président Sonko di waxee li ñëpp bokk ñëpp dañ ci war a jot. yaa ngi dégg. ci wàllu justice bi également euh, justice dafa war a jaaxaan. Euh, nekk baru fi nekkal baado la baado la boo tooñee ñu teg la yoon boo amee xaalis wala nga euh, euh, dend ak ki am xaalis wala ko am nguur bu la neexee nga def lu la neex tey say ana ñaata dossier actuellement la ñu ni président moo jël tiontam tek ko ci. donc loolu te ñooñu ñu doon wax ci système bi quoi système bi ci lool la système bi ci loolu la. parce que système bi comme ni ko président waxé mais Sonko système bi la bok ndax. moom ñi ko moom mais mais le président a répondu à cette question là Soumba ji. Mhm. lan la wax ci système bi mais mu ni système bi nit ñi nit ñi ñom ñoy système bi mais nit ñi nek système bi yépp mais y a des patriotes ñu gëm seen réew ñu bëgg seen réew ñu jup ñu am probité morale ñu nga xamni tay say ni peut-être ces personnes-là sont peut-être minoritaires dans le système moo tax majorité bi moom mooy dominer loolu et puis surtout li gën a am solo mooy ki nga xam ne moo ci kaw mooy président c'est-à-dire président dafa am solo ci réew président am na nu muy mel euh, peut-être ñu nekk ci suuf du ñu am lu ñuy ñeme def exemple bi may joxe rek borom kër su dee ne da nga nekk borom kër nga am looy doxal ci biir kër gi euh, par exemple nga toog di di saw si digg kër gi mm-hmm. nga baal ci wax bi

loolu xam nga wax la c'est une déclaration. Mhm. mais la réalité est que il y a des gens yu nga xam ne yoon da leen a ba ñëpp dégg ko wala ñu cité ci ay dossiers ay scandales yu dul jeex. te ken leeralu ko. Mhm. bi mujj. Mhm. pas plus que temps est passé 29 milliards Prodac yi. coow nañ ko ci fu nek fan la mujj mais euh, Cheikh Kanté Port. ñu ngi koy Modou Bane le journaliste là mi ngi koy euh, joxañ ci ay milliards yu nga xam ni kii port lañ ko jëlee. loolu yëpp sénégalais diko ko dégg mu nek alalu réew mi ñu war ko leeral. te ba léegi ken waxu ci dara. waaw am na solo donc euh, rafet noonu tamit euh, jotaay bi. Mhm. naam sax buggoon nañu mu gën a yaatu ñu gën a mën a waxtaan. Mhm. mais aussi tamit je pense que. waxtaan fi li nga xam moo gën a am solo. Mhm. donc juste rek di bàyyi la nga lancer message bi nga xam ne ak li fi doon xew ci côté violence bi nga xam ni. gars yi daf mel dañ leen sonal nag takk. Euh, fu ngeen fu ngeen jaar rek ñi ñi bombardé leen quoi. waaw waaw <laughs> xam nga toujours euh, comme ni ko tubaab yi di waxee rek la violence est l'arme des faibles. Mhm. c'est-à-dire man nee naa nit ku demu ku tay say nit ku dem ba amatoo euh, bilan. Mhm. amatoo programme boo mën a proposer sénégalais yi. jàpp ni dinañ ko déglu. dégg la.

ñun bi ñu ñëwee fii Saint-Louis bi ñuy marche noonu mais dañoo dal suñu kaw suñu benn militant Ibrahima jaw ñu toj bopp bi gaañ ko ci bët ba léegi bët baa ngi xonq beneen militant waar ñu damm loxo bi fii à Saint-Louis ñu dem Mbour ñuy marche ñu baare tali bi président di Ousmane président Ousmane ko ñu baare tali bi di ko doo jàll mu wàcc dox ñu dem Fatick ñu dalaat suñu kaw xam nga suñu bop militant xam nga di di violenter comme ça donc mënuñu nak ñu nekk ci dëkk bo xamni amna yoon nit ñi di jog di dal ci kaw nit ñi fu nekk tay ci en toute impunité. Mm-hmm. ñoo ngi koy ñaawlu trop peut waaw xam nga lo rafetul. Mm-hmm. te fa muy jëm du baax parce que par la suite président jog non violence bi dangam dangam mais en vérité xam nga boy wax ci kaw. Mm-hmm. wala li nane kuy màtt di off am lolu kilifa buy def non mais lolu du jëme rew ci jamm ok donc peut fi may euh, terminer. Euh, surtout di euh, wax sénégalais que euh, comme nous président di waxé avenir c'est maintenant. Mhm. pourquoi ñu avenir c'est maintenant donc avenir venir lañ koy préparer. Mhm. et donc jot na sénégalais ñu par ay mhm. ñu également nan xawma qui daf ma jox li wala daf ma jox la wala ño bok li wala c'est-à-dire li Sénégal nañu Sénégal. nit ñëpp ñëw xool li nga xam ni mooy intérêt Sénégal ñu ànd ci loolu te bàyyi par parloo bi ak ay sama mbokk la ak ay sama lii la bu dee sa mbokk te baaxul ci réew mi. Mhm. mais ki ci réew mi nga jël ko. Mhm. Euh, beneen bi may terminer mooy di woo nit ñi également ñu jël seen ay carte et comme ni ko président di woote tamit ñu voté massivement. parce que mbir mi yaakaar naa suñu voté massivement rek. Mhm. su neexee yàlla suñu borom euh, li ñu naqadi ci réew mi yëpp euh, dina fi dañ. et puis euh, euh benen fi may mujjé mujjee euh, euh, toujours euh, ñuy wax Sénégal dañu mën folli mais ñu fal. Mhm. ma ngi leen di euh, lancer un appel sumay mbok sumay su may euh, dëkkandoo. Mhm. sénégalais en particulier Saint-Louisien. Mhm. que euh, d'accord li fi nek baaxul nañ folli mais bu ñuy folli également nañ xol ñi nga xam sen loxo setna ñi nga xam ni également am nañ probité morale. Mhm. ñu mën a fal ñooñu pour li ñu daloon ci waa yi fi nekk ba ñu dalaat. Mhm. Euh, loolu laay euh, tàggoo di sant di gërëm euh, di leen remercier également. Mhm. ci interview bi. di nuyu mbokk Saint-Louis di kontaan trop ci ñoom. di leen wax ni. Euh, mbir mi soreetul. Mhm. nañ continuer jàpp rek. incha allah su neexee yàlla lépp dina baax. incha allah donc am na solo kàddu am na solo. waaw euh, di gërëm aussi képp koo xam ne rek yaa ngi toog di seetaan di gërëm aussi euh, suñu techniciens yi xam ne ñu si ginnaaw. su mel ma Mandiaye faal ak Gaz El Salvador ñoo ngi koy ñu ngi leen di bu baax a baax. Mhm. bu ko defee rek di leen jox ak daje ci yeneen numéro incha allah jërë ngeen jëf.